jot na examen yi xamante ne institut Pasteur jox na ko si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu réalisé mën nañ leen yëgal ne fukk ak ñett ñëw nañ nekk ay examen test positif bon dog ñu am jàngoro yi kenn ki kaa importé la mooy ku ko jële bitim réew fukk ak ñaar yi ay cas contact la ñu doon suivre ñu yëgal leen bésu tey bi fukk ak ñaari patient wér nañ danañ leen genn ospitalisation tey ñi nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tànn ñaari cas grave yi leen yëgaloon démb ñoo ñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas la ñu déclaré Sénégal ñeent fukk yi wér nañ bon ndëkk téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu leen di suivre ñu yëgal ne dañoo seetlu ne district ouest ak district sud fii ci Dakar am nañ situation boo xamante ne dafa jar ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax moo tax am na benn réunion boo xamante ne 17 lañ koy def ak képp koo xamante ne war nga ko fekkee pour que ñaari district yooyu ñu am ci benn stratégie boo xamante ne différentielle ministère de la santé de la sociale mu demandé population yépp ñu topp ndigal yi bu baax pour gagner combat bi ñuy combattre le Covid 19 maa ngi leen di remercier bu baax. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir mën a jot moo leen vidéo mën a xam